alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada nabina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahu wa man tabiahum bi ixsaani ila yowmi diin rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki ñu bokkal borom bi tabaraka wa taala ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla ak barkeem yërmande ma xewalam suturaam yàlla na ko borom bi tabaaraka wa taala wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot tabaarakallaahu yéen a ngi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Ndiaye fii ci Mouslih TV mission bi muy am ak yéen samedi bi jot ci waxtu wi tuddee li ci réew mi fa tabaarakallaahu di ci ànd ak sunu caméraman Oustaz Saïd Diallo nu koy nuyu di ko ziyaar ñoo ngi jaajëfal mbokk yi macha allah ñoo ngi jot ñenn ci mbokk ñi ñuy rafetlu émission bi. dañuy wax ni ay ñaax la rek tabaarakallaahu day tax ñi gën a góor góorlu mbokk yi li ci réew mi nag émission la boo xamante ni day xool loo xamante ni ci réew mi rek lay xewee ñu di ko waxtaanee lépp lu ñu jàpp ni buñ ko waxtaanee dañ ci gis njariñ wala solution ñi bokk ko ñun ak yéen def ci sunu jàngat xool lan moo ciy solution mbokk yi jamono yi ñu toll de nekk na jamono yoo xamante ne nii képp ku yor xel tey xelu rekk war ngaa tiit war nga tiit war nga ragal ci loo xamante ne ni gisuñu ko fi woon ci réew mi te jamono ju ne dañuy gis ni day gën a yokk mbokk yi ku ne gis ne rey bu bari bi nga xamante ne moom ci biir réew mi dañuy wax ni at yee ci ginnaaw at bu at mu ñëw rek nga ne at mi kat rey yi bari na waaw at mu ñëw rek nga ne admira yi bari na ba ci 2019 bi nga xamante ni ci lañ jóge bokk na ci at mi ëpp liñ ci rey ay doomi aadama ci rey yoo xamante ni yow doo xam ci lan lay tege mbokk yi ba at bi teroog léegi ñoo ngi ci mois de janvier ñaata nit ngeen dégg saa bu ngeen xëyee di dégg journal yi ñuy wax naan ñii ñi ñi rey ci dëkk bi te am na ci ñoo xamante ni sax mën naa ni médias yi jotuñu leen a mbokk yi bu ñu demee ba tollu foofu nag ci ab réew war nañoo taxaw xool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mujjum jamono kat bu teewee bu ñëwee nee ne ki rey ki reyee bu ñu ko laajoon lan moo tax nga rey diw du wax la moo tax mu rey ko ki ñu rey it dina xam du xam it lan moo tax ñu rey ko te ci jamono jooju lañ tollu mbokk yi. moo nit bu ñu demee ba toog di wax nan lan mooy solution dama ne gàcce la ci ñun ñuy la lan mooy solution gannaaw lañu yàlla andil ne lii mooy seen àtte ñu jël ko teg ko nële nenoo du solution mbokk yi yàlla mi amal jaamam bind ko ndax nit ëpp na ci moom sañ-sañ wala yërmande tontu lii moom mooy déedéet kon yàlla dogal bi nga xamante ni li nga xam ne moom la tëral tracé ko mbokk yi wallaahi buñ ci tënguwul dañuy sonn rek ndax njubam gii àtteem yii muy teg ko muy ay lay leer naññ ñi bàyyi ko foofu noonu loolu du solution te bokk yi li may wax chaque jour rek ne waa droit de l'homme man ba léegi man damay wax ne man dafa firi bi man dafa des man ci ba léegi ci sama bopp ndax ki ñu rey ndax dafa amul droit ndax dafa amul àq ci dund am ku taxaw xañ ko ko ki taxaw xañ ko ko ñu ne moom it danañ ko xañ dund comme na ko xañee waa jële ñu ne déedéet loolu du solution ñi ko fan benn ñaar ngay àtte nit ki xëy mu tëdd lu mat ñetti at ñeenti at juróomi at nga gisaat ko muy doxaat ci pénc mi te bu génnee pare na ngir def lu gën a pire loolu ndax léegi keso yi comme ni ñu koy waxee gone yi léegi congé lañ ko def bu ñu noppaloo rek dañuy jéem a def crime bu leen fa yóbbu ngir ñu dallu mais amul lenn loo xamante ni nii lu muy def ci ñoom la wala benn yar boo xam ne dana ko bàyyi ci ñoom ba bu ñëwaatee ci société bi nga gis ni kii kat changé na doxalin doo ko mës a gis kon mbokk yi nañu ragal yàlla xam ne ni li nu yàlla sant gis nga li may faral di wax génn góor da ko mosoon a wax mais gis nga laajte bàmmeel bokk na ci liñ lay laaj lan moo nekkoon sa téere nee na ñi bëri fa la ñuy daanu ñu bëri ci foofu lañuy ñuy yow mi nga xam ne yaa taxaw ne eh, yaay def yow yaay défendre ni ku ree duñ la rey jàppal ni mise ngi ñëw ci biir bàmmeel dina la lan moo nekkoon sa téere bis boo ne alquran alquran dina la gàntal ndax moom moo jàngale ni ku rey nit nañ la rey yow nga sañ am tax tax taxawaay mbokk yi ne loolu kàddu solution xoole ki ñu mujjee rey ci kaw la muy mbir mu daw yaram mbokk yi imagine imaginel mu bàyyi réewam di ab américain ñëw ba sunu biir réew yamu ji mu bàyyi diineem ñëw ci sunu diine mbokk yi mu bàyyi jàngaleem ñëw ne fii lay jàngee téere borom bi tabaaraka wa ba xibaar yi ci mujjee dégg mooy dafa jàng ba wattu alquran mbokk yi mu bàyyi réewam jàpp ni fii mu ëpp sécurité ñëw dëkk fi mbokk yi ñu xëy xëy rek ay nit ay nit dugg ci këram rey ko ci reyin gu ñaaw gu ñépp di mett lu gu ñépp di naqarlu mbokk yi mu nekk mbir mu daw yaram mbir mu metti xëy xëy fekk ab nit fa mu ne rey ko ay fan ñi jàpp la yow doo mujj fenn ci kaso bi la ñu dugal ngay lekk ak naan ni say morom kese lekk ñu rey moom perte na kon nañu ragal yàlla te ñu xam ne li fi yàlla tëral fekk ñu ngi koy won gannaaw wallaahi dañuy sonn bu kenn laaj lan mooy solution bi lenn du solution bi lu lu ku rey ñi rey la loolu rek mooy solution bi ku rey ñi rey la fa lañu teg di jàpp nit ñi di rey rek buy xool bu yàggul nga gisaat ki nga xam ne rey rey rey na papam xooli si ci sibs ndaw soos nuñ koy def saa yu xëy léegi da nga dem ba média yi moom ah dégg maam dégg nañu diw am na ku ñu rey moom léegi moom nekkatul dara ñoom. boo xëyee xam lan ngay njëkk a dégg kan lañ rayeeti fan la dëkkati yàlla na nu yàlla yërëm te jéggal mbokk yi nañu xam ne solution bi moom mooy ku rey nit nañ la ray ku rey nit nañu la ray loolu moom mooy solution bi fekk andiwuñu fi lii ray bi du fi mës a jóg ray bi du fi mës a jóg ndax booy léegi léegi léegi ngay joteeg nit mu bojj ab paaka ne ko suuj jam te du mujj fenn du mujj fenn beneen bi may tëjee mooy beneen mbir nañu ko bàyyi xel mooy ay ndaw ay jeunes jóge fii dem armée yaakaar fab liggéey jàpp ne ci tekki waaw imagine toi nit koo xam ne yaa ko jàngalee xeex jàngale ko nu ñuy rayee nit nga xëy xëy daal ne ko libéré nañ la jëlatoo ko liggéey ba ko muy tambaambaalu kooku bu amul benn benn ngëm-ngëm gi benn ragal yàlla gu mu nekkul ci moom la nga ko jàngal lay fere lay lay lay exploité di ci nangu alalu jàmbur def naka suru noonu nit ki nag nga koy jàngalee rey ba pare ba ko muy dem yaa ko jàngal du ñuy rey nit jot ko yóbbu ci yenn ci mission mu xëy xëy rek nga yow nga ne ko waaw ayca kon kooku lu mu defee yaa yaa am yaa amee responsabilité solution bi du lenn mooy ñu ja dellu ci alquran ci lu yàlla wax mbokk yi loolu rek mooy li nga xam ne mooy solution yi kon nag li ci réew mi la ne. ñu mën ko waxtaanee ci émission lii ci réew mi lépp lu ci jub ci yàlla la lépp lu ci dëng rek sunu matante la waaxiru daawaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu